Assalamualaikum mbokki luba ñu leen di nuyu ku ne turam ak santam di leen ziar bu baax ci wéru koor gi di leen maasawu tamit ci mbas mi nga xam ñu ngi koy dund ñun ñëpp man maa ngi tudd Cheikh Diallo Diène nekk responsable des jeunes pasteur Louga en même temps coordinateur gps et responsable cellule Altieri Nord bu Pastef di nuyu l'ensemble des membres de la JPS ici présents di aussi ñi nga xam coordination en l'occurrence M. Ndiak Sar, vice coordinateur et chargé de la communication M. Abbas Boubou chargé de la massification et M. Mamadou Tcham, secrétaire administratif Nous ñi nga pour nous parler de wax Covid 19 les jeunes patriotes de Louga le Covid bi en même temps ñi décortiquer discours d'Ousmane Sonko et aussi parler de la gestion du Covid par la municipalité Wa donc nous nañ dugg ce discours bi Wa, euh, ki ma ko Je que je suis mbokk patriote donc je mooy parler du discours d'Ousmane Sonko Wa, ñun en tant que jeune patriote suñ taxawaay fi mu njëkkee moi, sensibilisation parce que jeunes yi li ñu gën a mën def ay recherche gëssu pour maîtriser sujets yi nga xam ni c'est relatif au Covid gëss ci bu baax ba am ci xam-xam dugg suñ plateforme yi discuter ci defay échange ba nga xamni ku ne am nga lo ci xam échange boobu mo ñu permettre ñu mëna laal point yu bari jëlee lool dugal ko ci biir sensibilisation yi wàcc suñu koñ wax ak ñi nga xam ne xëy na jàpp nañ ni ñii duñ maîtriser point bu baax dugg bu baax a baax sensibilisation yi sensibilisation yi nag bokk na si jéem a expliquer nit ñi ni ñuy takkee masque par exemple jéem leen expliquer aussi ni ñuy raxasee seen loxo parce que loolu nekk na point bu am solo jéem leen expliquer aussi que fépp fu ñu toog nañ def li ñuy wax distanciation sociale waaw képp ku toog sa wet ka fa na fexe ba na la dànd un mètre yooyu yëpp nekkoon na ay points yoo xam laal nañ ko si sensibilisation bi te yaakaar naa ñu bëri gis nañ taxawaay jeunes yi nga xam nekkoon nañ si dëkk bi. jeunes yi ñu si bëri aussi boo xoolee plateforme yi nga xam existé na au niveau de luga participer nañ si si mel na stop corona ñu ngi ci biir doon si liggéey doon def ay collecte de don doon def ay collecte de don doon def ay aussi euh, ay distribution de gel alcoolique distribution de masque mais fi nga xam ni fa fa lañ gën a remarqué seen travail mooy am na ñoo xam doon nañ dem par exemple mairie doon dem si service public di vérifier ndax service yooyu noonu respecté nañ euh, mesure barrières yi pour au cas éventuellement def ay dénonciation parce que dénonciation parce que ñoom ñoo war a njëkk si respecté xeex bi waaw donc mais heureusement fépp fu ñu dem si lismel mel ne mairie tribunal gis nañ ni respecté nañ mesure yooyu donc mu nekk loo xam ni moo nekkoon njëlbeenu xeex bi léegi nag ba nga xamee ne def nañ ay sensibilisation wax ak sunu maire yi wax ak sunu rakk yi si lañ fa jógee léegi kat benn action bi ñu mën a tegaan mooy comme ñu si bëri la plupart ay étudiants lañ jàng nañ te am nañ yenn niveau yi donc te élèves yi nee nañ leen ñi ñibbi seen kër te ku ñibbi mën nga bañ am possibilité jàngal sa bopp ñun ñun ñu léegi nañ jéem a fexe gëstu def ay cours en ligne def nañ ay cours en ligne à travers le YouTube à travers Facebook dugal ko partagé ko si plateforme pour ñoom ñu siy jàng loolu tamit nekkoon na suñu taxawaay ci xeexu Covid bi. demoon nañ aussi comme dañuy tere rassemblement mun ñu woon di ànd yenn mbooloo dem mais de façon dispersée des fois ku ne responsabilisé nañ la pour sa koñ tailleur yi fa nekk par exemple nga incité leen à que ñi defar ay masque di ko sol ñoom di ko exiger képp ku dugg seen atelier mu sol ko ku si mën a produire aussi des masques en masse nga génnee ko jox ko sa koñ. yooyu yëpp yaakaar naa dugg nañ ci biir koñ yi wax ak ñoom ci loolu te gis nañ ci ay résultats def nañ ko waaw avant sax ministre bi di exiger port obligatoire de masque ak ministre Moustapha Diop di wax ni nañ fexe ba defar des masques en masse yoo xam dañ koy homologué tailleur yu bëri defar nañ ay masques jox ko population bi te loolu yaakaar naa ñun def nañ ci def bay nañ si waar bu bu am bu am am solo waaw léegi nag euh, balaa may jox suñu mbokk Karim rek euh, ma ñëw tuuti taxawaayu Pastef à travers Covid bi parce que yàggul dara gis nañ suñ benn mbokk Mademba Gueye waaw mi nga xam moo jiite diaspora bu Louga defoon na benn don de masque ak thermoflash jox ko coordination bu Louga pour mu distribuer ko si dëkk bi mu loolu tamit mu nekk loon rafetlu Pastef Louga ñoom ñoo def loolu sans compter les les accompagnements individuels yi nga xam ni nit ñu def nañ ko parce que bëri na patriote yoo xam ni xëy na ñoom euh, bugguñu li ñuy def ñi feeñ si motax ku ne sa roq yaa ngi jël ay dong diko jox nit ñi dekk no goy di dimbali am na ñu ci yek mais am yo xam ne jare woon publicité mais yoy yeb dal am action yo xamni amna mais mën nañ wax ni c'est de façon individuelle et et dispersée maintenant pour ñew rek ci li nga xamni moy suñu dekk liñ fi gis muy ñi am maire bo xamni ñun ñoko fal mu war ñoo guddil ñu ñu ko doon xaar ci période mel nii pour mu ñëw am taxawaay bu rafet boo xam population bépp dañ koy rafetlu loolu nekk na loo xam ni ñu bëri ñu ngi koy jooytu parce que Moustapha Diop kenn gisu ko si Covid bi au niveau de luga waaw li ñu gis mooy toog na bureau am ci ministère am def benn live Facebook envoyé ko pour ba def ay massa ni ñi yaakaar naa ñun du loolu lañ doon xaar toog fee rek def sa live Facebook di massal nit ñi du loolu lañ doon xaar. li doon xaar mooy moom mu ñëw wàcc si terrain bi dund Covid bi au même tiit que askan wi nga xam ne ñoo fi nekk Louga pour ñu xam ñun kat kin fal au moins il est sensible aux besoins des populations. en temps mu fexe ba euh, plateforme yi am si gestion Covid ñu sentir ko si waaw dañ ko si war a sentir parce que plateforme stop coronavirus Louga bokk na si fi njëkk si senegal mën naa ko wax parce que du ma ko nëbbu au départ ñu ngi doon wax ni comme Louga dafa bëri ay moodu-moodu. boo moytul Covid bi fa lay ëppee doole loolu tax ñi defoon anticipation bu mel noonu def stop coronavirus bu am doole mais man dégguma ko si gis ñu tamit taxawaayam mënoon na mënoon naa def benn geste de reconnaissance wane ni ah plateforme bi kat ñun liggéeyam ñu ngi koy rafetlu te si contribuer lii danañ leen dimbalee ci lii. beneen bi aussi mooy manque de communication bi nga xam ni am na si euh, ndimbal mooy dund gi nga xam ne Macky Sall yóbbante na ko si région yi. kenn xamul fum mu toll te man de musuma waxtana ak kenn bam ni ma jotna kenn mënut wax diw jotna wala diw jotugul bu wana ñu mana it war nañ mën a communiquer ba population bi xam ki ak kii jot wala bok nimbali fi la toll bu accès gul ñu xam ne accès yep yooyu gouverneur ak équipe bi andal àndal war nañu see mën communiquer ba nit ñi xam fu mbir mi toll. manque de communication bi aussi fu mu feeñee moy <coughs> gis nañ ni ba. xeex bi commencé tar ñu commencé di dégër pire marché bi jël cantine yu bëri yàq leen jaaykat yu bëri aussi ñi jël seen marchandise caxat caxatee ko mais loolu yaakaar naa coono mënu ko weesu parce que tamit balaa nga jël ay mesures yaakaar naa war ngaa mën a dànkaaf population bi jox ay ultimatum en kat yéen fekk une semaine lum néew néew dañ fi ñëw pour déguerpir marché bi wala pour def tel ou mais loolu lépp defuñu ko dañoo xëy suba rek. ni suba kat dana ñëw si marché bi jëlee fi les les marchandises clandestines et autres noonu parce que bëri na si ñoo xam ay impacté lañ métti na si ñoom trop trop trop trop trop te li si gën a métti mooy ñooñu ñu si bëri jooy nañ loolu dëgg la mais ba ñibbee seen kër it ba toog jël seen taawal teg seen bundu kër gis nañ ay agent municipaux yoo xam ne dañoo ñëw leen jox ay taxes ay taxes municipales mais loolu di lu jaaxal ñu bëree bëree bëri comment se fait-il que en période de crise bu méttee nii mairie jaayatuñ mais ñu débrouillé ba ñëw seen bunt ko teg fa ay table amuñu lu ñuy def du leen taxé waaw ku xool publication Facebook yi di nga gis di nga gis ay image yu yu firndeel loolu donc loolu nekk lu doyo doyo doyo doy doy waar en tout cas ñu ngi koy jooy te di wax population bi dañ leen war di communiquer fépp fu xeex bu toll war na leen communiquer neen lii ak lii ak lii lañ nar a def pour que ñu jël seeni matuwaay parce que loolu lañ mérité waaw ñi nga jiite kat da nga war di diisoo ak ñoom ak di leen dànkaafu ak di leen avertir à temps pour que ñu mën a jël seen i matuwaay loolu lu ama am am solo la maintenant loolu moo nekkoon au niveau local maintenant bu ñëwee rek si actualité bi euh, à travers la Covid man fi may fi may fi may gën a waxee mooy boo gisee affaire instant yi nu mu pëcc xoo ba jaxasoo ba kenn mënu laa wax. ni la mën xexé ba arrêté Covid bi fi ni Ken Ken kenn kenn si ñun mën la wax Covid ni la ko mëna xexé xeexee ba dem parce que il faut apprendre à vivre avec le virus est ce que ñun jangal nañ ñu ni ñuy dundé ak virus. <laughs> mën nañoo formé au moins pour ñu mëna vivre avec le virus mais formé wuñ ñu donc ñu ñoko wara jangal suñu bop fi ñan ñoo fi comprendre luy virus ñu les bio les les biologistes ñan ñoko comprendre luy virus. donc ñi kay xana ñoko wara mëna jangal seen bop wala ñoo ñi yoni leen ci askan ñoo jangal ñu luy virus donc fofu instant yu pëcc xoo bu méttee métti am na te loolu lu ko mënoon a éviter lenn la mooy Macky Sall jëloon les bonnes mesures à temps waaw te les bon mesures à temps bokkoon na si mu teewoon tëj frontières yi ba nga xam ne feebaru xëy ba bu ñu ko déggee Chine mën na fee bañ a léegi def na erreur foofu feebaru agsi na fi mu juum ñëw tëj école te avertirul kenn dafa ñëw rek tëj école yi dafa ñëw école yi école sax maa ngi fàttaliku samedi la ko tëj. dafa toog benn samedi rek def ni dañuy tëj école yi mais avant loolu moom waroon na mën a avertir tamit à temps ñoom ñi dem préparer seen i élèves ku ne préparer sa élève ni ko yow kat nii ak nii ak nii nga war a comporter bu bàggee sa kër ñoom ñu jël seen i mesures barrières parce que élèves yi ay xaay lañ bokk na si ñi gën a déglu seen enseignants yi leen di jàngal ñoom la ñuy gën a déglu donc ñooñu.

yaa ngi dégg xëy suba ñu leen suba dañuy tëj transport interurbain mais ñoom lu ñuy ñibbisi waatee bëri na ñoom fa lañ des ay Tambacounda ay Ziguinchor nekk fa ay doxandim amuñu fa mbokk ñooñu nan la ñuy dundee crise bi non seulement liggéeyatuñ mais fa lañ des amuñu fa mbokk amuñu ku leen dimbali yooyu yëpp ay impact la ñoo xam ni mënoon nañ ko éviter bu nekkoon def nañ ay une bonne planification fexe ba waxtaan nit ñi avertir leen may leen temps bu doy balaa ñuy jël ay mesures di ko corser corsé nañ mesure yi xam nañ ni am nay impacté xam nañ ne aussi léconomie économie risque d'aller à terre loolu tax ñi ni kat ah buñ ko nee si tendance bi kat Sénégal du baax loolu tax Macky Sall ni je suis obligé ma ma def ay mesures d'assouplissement mesures d'assouplissement yi loolu kese moo ko waral dem nañ ba xam ni on risque d'asphyxier l' économie ñi léegi nañ def assouplissement mu nekk lu contradictoire trop parce que au moment où virus bi propagation jël une phase ascendante yaa ngi dégg yow nga naan yaa ngi yaa ngi yaa ngi wàññi mesure yi loolu lu contradictoire te lu kenn mënut a comprendre te li koy indi encore une fois mooy manque de communication bi nga xam ni nañ ko à de nos autorités te mu nekk lu war a dakk loolu moo taxoon ñun ñu ni ah ñun kat nañ fësal sunu jooy à travers si média yi pour que bu nekkee mun nañ rectifier le tir ñu rectifier ko à temps parce que covid bi ñom ñoom euh, d'après lañu wax mëna dem ba août septembre donc mën nañ fi rectifier le tir à temps nañ ko def loolu taxu ñun nañ leen dankafu wax ak ñom pour que voilà euh, lepp lu ñuy ragal ci crise bi mu bañ see am muy mu law ben façon law bi wala économie bi et nek à terre waaw da lañ la ñu leen ko dektel tay leen sant leen gërëm waaw bisimilah salaamaaleykum euh, waa Ñambur man la Karim sen dom karim ndjay si Euh, di secrétaire administratif au niveau de la cellule euh, de Sandiougu Sud Pastef membre tamit euh, JPS. waaw tey nag dañ fi ñëwoon bëggoon a waxtaan ak yéen ci ay d'actualité yoo xamante ni yëpp dafa relatif au niveau de la Covid jugee ci suñu mentor suñu camarade suñu chef de parti le président Ousmane Sonko. waaye laataa loolu ñu dugg ci discours bi ci discours Ousmane Sonko bi ñu ngi ñaan yàlla baal ñu àq ñu ngi leen di baal àq tamit di leen baalu àq ci weeru koor bi di xëcc ci jeex di ci ñaan yàlla mu nangul na suñu koor yàlla wàccee njëggal ci ñun yàlla ni weeru koor bi di demee li nga xamante ni mbas mi nga xamante ni depuis le 2 mars déclaré woon na fi ñu ngi ñaan yàlla boole ko mu àndaal ak weeru koor bi dem mu soppi lépp lu doon tiis tiis ak ak ay ay bànneex ak ay njëggal wàccee ko suñu kaw di maso di masow bu baax suñu yaay yi ak suñu baay yi nga xamante ni ñoom covid bi laal leen bu baax ci Sénégal gépp rawatina nag ci Louga fii surtout mooy suñu yaay nekkoon marché dafa daan seen doole di fa yor seen kër nga xamante ni depuis ba Covid bi commencé ba léegi ay mesures yu ñu jël tax na ba tey seen activité yooyu noonu nas na na sax na ba tey jii kër yëpp yëg nañ ko du point de vue économique. donc ñu ngi leen ci masaw bu baax moo tax ñuy waral ñu gën a ñokk ñaan di jokk suñu ñaan ci yeneen ñaari kilifa diine yi di ñaan yàlla mu nangu ñaan yëpp ngir Covid bi euh, gaaw fee jógee donc ñu war ñëw nag léegi ci discours bi Ousmane Sonko def. Euh, juste après le discours du président de la république euh, euh, Macky Sall a suscité une interrogation à ay coow yu juste avant ñu dugg ci Ousmane Sonko wax le contexte de son discours. le 2 mars nous avons que le premier cas de Covid 19 au Sénégal donc avons commencé à wax une série de mesures nous xamante ñu koy commencé ñu mais nous dem le 23 mars il faut que l'État est entré en jeu jël des mesures ci lañ déclaré l'état d'urgence, assorti d'un couvre-feu après ci lañ prolongé de façon même parfois illégale juristes yi wax nañ ci loolu moom duñ ci dellu siwaat waaye ñu gis ne rek booba léegi ngi jël ay décisions yoo xamante ni dafa incohérent donc loolu suscité woon ay concertation wala boog ay ay ay ay réception au niveau du palais de l'ensemble des couches sociopolitiques même du Sénégal ci le suñu leader le camarade président Ousmane Sonko euh, dem palais mu étonné woon ñu bëri waaye loolu day firndeel rek wane le président Ousmane Sonko c'est leer dara ñu ko dul Sénégal lépp lu Sénégal taxaw moom da ciy taxaw lépp lu Sénégal nek da ciy nekk lépp lu baax ci lu Sénégal moom ci lay nekk. donc ci le wuy ji le président de la république euh, Macky Sall pour ñu waxtaan ci situation bi waxtaan nañ waye mom ñepp gis nañ ni à la sortie il était le seul. Euh, donc euh, euh, candidat le seul opposant reçu il est parti avec des propositions sur la table ba des demander avec une feuille de route claire parce que l'activité, mbir la la la après waaye léegi nag bu loolu amee dañuy taxaw di seetlu parce que nag euh, un penseur bu mag di un sage Sénégal da doon wax la règle en politique c'est que quoi c'est que les gouvernants gouvernent les opposants s'opposent ki ko wax mooy le feu président Kéba Mbaye ñu koy ñaanal foofu mu tëdd yàlla yéesal yërmande ci kawam parce que amoon na njëriñu torop Sénégal donc Ousmane Sonko en tant que leader de l'opposition parce que day nit ñi dañuy bañ rek waaye fi mu toll nii ñëpp xam nañu opposition Ousmane Sonko moo ko ŋànk donc d'observer avec les camarades patriotes le, déroulement ou la gestion de la Covid au niveau national. ci si ci mesures yi le président du génn di jël euh, décision déclencher état d'urgence nous avons dégg nañ ko l'heure est grave chers compatriotes l'heure est grave ñëpp dit que l'heure est grave mu teg ay mesures difficiles, difficile Sénégalais yi jël si si jël ci il faut ñu def ko Covid bi ñu demaat ba ci bon ndax xam nañu léegi génn amatul mënatoo dem France di dem di wuyu ji ay ay ay médias français mais néanmoins gis nañu le président répondre na une invitation France 24 di un média français di fa wax euh, ci lu jëm ci wàllu gestion gestion virus bi ndax nag euh, li gars wax rek jikkoog borom pax ñun ñoo xamante ni xamante nañ la yow boo nee wax lu am solo jëmale ko ci askan sax da ngay xaar ba dem ca bitim réew ñi nga xamante ni peut-être yow ñoom ngay toogal fii ñoom ngay ñoom ngay gouverner il faut ngay dem rek mën a wax donc ci lañ ko invité mu wax mu ne lan mu ni discours ni ni gestion ni crise bi di évoluer mom dàqul sax bañu dem bañu confiner ñu totalement gars yi ni wa lol de bu amé di la metti waye ni ni wax deug yalla jar nako ñepp ni wa lol président mënes nako deug ndax ndax ndax jar nako liñu jaxal nak moy fofu kon président dans signal dans signal gauche ñu ñew ba kérok le 11 mai président jàdd droite légui jadd bi mu jàdd droite nak ñëpp xamuñ mënuñu comprendre li tax ndax boo ñu préparé woon ci confinement suñu xel yi suñu médecins yi ñëpp lu ñuy wax waxi confinement ñëw wala 11 mais nga def discours daal di da ngay assouplir yenn mesures alors que Le virus bi mi une phase ascendante bu grave titre ñun ñëpp les cas communautaires di proliférerul tellement bu boba li ñu dañuy décret créé jiixi ci xelu nit ñi dama rappelé ni bañuy euh, euh, état d'urgence le 23 mars 7 cas communautaires moomoon Sénégal pour une vingtaine quelques de cas tey jii on est à plus de 2000 cas comptez le nombre de cas communautaires depuis depuis donc quelle est vraiment la portée des mesures prises par le président de la République lolu day jar nous ñu bokk ak réew mi parce que réew mi moom moom ko ñun ñu bokk ak moom réew mi ñu wax ak ci ñu ak le président Ousmane Sonko mu génn def discours pour wax wax ci ni ñu euh, Covid 19 bi ko alors li gën a am solo discours le président Ousmane Sonko euh, na moom rek a koy gis ndaxte ñun président président suñu président de la république mi ñu fal mi wax ak ñun buy wax ak ñun kàllaama nasaraan lay wax ak ñun kàllaama tubaab nasaraan lay wax ak ñun alors que keroog bi président Ousmane Sonko di wax ak ñun ci kàllaama kocc la wax ak ñun pour ñun ñëpp sénégalais bépp mën koo dégg xam li mu bëgg a wax. le benn penseur euh, congolais da doon wax mu ne dans ma tendre enfance où je m'épanouissais dans ma langue maternelle l'intuition du français m'est paru comme un gendarme dans ma vie ngay gis ni kon. ngay wax ci sa kàllaama réew di ci jàng moom ngay gën a mëne en fait dem ca kanam boo bëggee développé wu donc loolu mu am solo trop mu ñëw wax ak sénégalais yi ci wolof ba pare traduirewul sax li mu wax ci français dem yoonam muy loo xamante ni war nañ koo jàng ci moom ndax loolu day jëmmal fulla wax sa làkku réew day wane ni yow fulla nga am te réew bu bëggee jëm ca kanam nag dafa baax li mu moom ci réewam boo ko ci làkkam boo ko ci koomam mu jëm ko téyel boppam jëm ko valoriser loolu ci laay duggee ci discours euh, le président Ousmane Sonko li ci gëna neex mooy président Ousmane Sonko wax dëgg bu doon professeur ñu deseet nal ko vraiment euh, euh, satisfaction totale ndax ñëw na d' abord ci incohérence yi nga xamante ni moom lañ jël comme mesure ñu rappelé di ba euh, muy rappelé d' abord ni ba ba Covid bi di dugg ci Sénégal ñëpp gisoon nañ ni Covid bi mi ngi raam di ñëw parce que Covid bi jékki-jékkiwul rek fël dugg ci dëkk yëpp Chine la déparé vers décembre 2019 janvier mu développé fa trop jékki-jékki mu dugg Europe def ay Italie Espagne commencé def ay ravage jékki-jékki virus bi feug Afrique Égypte nek premier pays africain bu bu contaminé wu ay Algérie ay ay Maroc top ci ñepp ni Sénégal ñun lu ñuy xaar pour préparer wu ngir virus bi baña a

lu ci demee ci Italie lu ci démé ni Maroc wala lu ci demee États-Unis waye yéen ñëpp gis nañ ci pays yooyu ñu tuddu yépp France mi nga xamanteni wax dëgg yàlla mom mo, mo moo toog ci kaw Sénégal note ñu boobu ba sur tous les plans mi ngi ci biir bu nu wona ba ba kon président mënu woon a jël décision fermer frontière ça ne va pas plaire au au patron français le président Macron donc mu bayyi bayyi ñoog virus bi. ñu tok ci ay ay ay quelques temps virus bi wacc Sénégal ñu ne waaw wàcc na Sénégal légui lan mesure lañ wara jël

lan d'accord assorti d'un couvre décision le seul objectif était quoi d'éviter la la propagation du virus sur toute l'étendue du territoire sénégalais mais malheureusement pour ñun sénégalais le virus bi suñ peu plus dal bi moment président di jël d'urgence trois communes peut-être trois départements du Sénégal la ñu mënoon Covid bi muy département muy Dakar région de Dakar euh, muy Touba la ville de Touba ak euh, Mbour fa la virus ba yamoon waaye tey jii nii moom waxal ci boppam bi wax discours am keroog le 11 mai nee na 22 départements ñoom ñoo amul virus bi waaye na ci moins un ndax département de Linger, mujjee naa am faf virus bi fi Aliou le ministre de l'Intérieur, intérieur Aliou Ngouye Ndiaye virus. donc loolu muy incohérence parce que objectif bañ doon ba mu

tax na ba suñu leader le président Ousmane Sonko di éclairer waat yi ci ñi nga xamante ni ñun nasaxal bi nga xamante ni nguur gi nasaxal na ko euh, Sénégalais yi ndax foofu ñu départ ba fii nii dara amu ci leneen dem ci ñu ni te li ci gën a garaaw mooy sur le président Ousmane Sonko soulevé na ko ci ci discours bi mais moom bi nga xamante ni les sénégalais sont plus que fatigués pour rappeler encore Kéba Mbaye waxoon na ko le président Abdou Diouf à son temps ni ko le président les sénégalais sont fatigués bu ko président de euh, euh, Sonko di ko rappelé waat euh, Macky Sall dans un autre contexte di ko wax ni les présidents sont encore fatigués plus que fatigués alors liñ ci liñ concédé ndimbal yi ñu dañuy jox dañ koy dañ koy joxe ay wuruj ak ay njut njaaj di ko def muy wax leen rek euh, nu tudd euh, jikko ak borom li ñu ma doon wax sànq rek pax te ndox du bàyyi yoonam wax na ko président Ousmane Sonko ñi ñu jiite dafa dafa nekk ni comme ñoom ñoo xamante ni bu nekkoon ci Socrate sax ñu ne alal réew maa ngi nii di rom faaw ñu jub dompat ci li ñu ci dompat tëdd dem wax ak malaakal moo ci doore wujji suñ borom donc loolu noonu dafa nekk loo xamante ni c'est asymptomatique parce que euh, son beau frère euh, Mansour Faye ñëpp gis nañ ko wax dëgg yàlla euh, moom peine bi mu amoon pour expliquer ñu les vivres naka la naka lay demee keneen na keneen ainsi de suite ñu créé fi ay milliers ay milliardaires ci biir ci biir ci biir Covid bi alors que xaalis la boo xamante ni sénégalais yi am na ñoo xam ne jël nañ seen 1000 francs def ci ñi jël seen nangam def ci ngir rek ñu xeexandoo ñun ñëpp ànd xeex ci Covid bi ci le président ni ñii kat il wax dëgg yàlla ñu fàttali leen ñoom moomuñu moomuñu réew mi tey dund googu noonu ñu jël ñu dañ ko dundee ay ay ceeb da ci jëndee ay diwlin mu war a mu war a mu war a impliquer ay ay ay ay moyens logistiques ay moyens matériels yu am doole Créer waat ay yeneen charge supplémentaire président propose ni pour moo ne day mën nañoo def neneen de deux choses une Mon nañoo envoyer ay transfert d'argent. yu gëna simple su boba ñi nga xamanteni opérateur même de transfert dinañ ci ñom participer sen xeex ci Covid bi parce que mën nañ soit ñu baisser drastiquement les coûts des transferts d'argent. buñ ko mënul sax may may état bi te loolu doona gëna am impact ci ci population wa illa ñu jaaroon ci leneen ci ci ci ci une baisse drastique des prix waaye déedéet loolu lépp defuñu ko. di ma saw tamit fàtte naa ko suñu bokk transporteurs yi ndax kuy wax tamit war ngaa wax ak suñu bokk transporteurs yi ndax boobu léegi ñoom bokk nañ ci deux mois seen moyen de travail dañ ko dañ dañ ko dañ ko gaare ba pare wàññi luñ leen essence du dara loo xamante ni benn mesure bu leen wàññil di leen teg ay mesures yu yu yu yu gën a yu gën a euh, am doole. loolu lépp nag bu fekkente ni proposition boobu la président waxoon def. maanaam ñu jël ay transfert defar ko konoon Sénégalais yëpp ci seen grande majorité dinañ dinañ am dinañ am benn impact positif bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy joxaat ci kii bi ba pare dinañ leen gën mën a jox force ñu xeex ak euh, virus bii ñu dem. li ñu mujj nag mooy wax na ko léegi la moo d'ordre à changé président moo ñu doon wax ak ay médias ñu yëpp restez chez vous ñëpp toog seen kër léegi la moo d'ordre à changé léegi affronter le virus la waaye président Ousmane Sonko bëgg gi Sénégal tax na bi ñu terminé.

foofu la responsabilité tamit di gëna di gëna di gëna di gëna bare parce que tay ji le président les a livrés au virus kon parents d'élèves yi ak kat yi nañu jël bu baax matuwaay yi ngir que élèves yi ñu euh, ndongo yi ñu bañ ñu bañ ñu bañ a jàpp virus bi li lañ ni won tay nañ jëm jëm ko juste décortiquer ci discours bi te xamni ne mënuñoo wax lépp ndax président Ousmane Sonko mom mo ni moo ni demee di ko ñaanal yàlla yàlla vraiment euh, muccël ay cërëm yàlla yokk ci yokk gudd fanam nous que bañ le 24 février 2024 ngir ñu porter à la tête du président pour un Sénégal prospère pour un Sénégal sur les rails de l'émergence pour un Sénégal qui aspire vers le développement et l'industrialisation merci beaucoup